bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana Muhammad ibn Abdillahi wa ala aalihi wa saxbihi wa sallim ixwatil kiraam mustamicuuna al kiraam asxaaba samaha maali al ulama wal aima wal asatiza asxaaba al fadilati asxaaba samaha asalaamu aleykum wa wa barakatuhu bokki di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yal na nu boole jéggal Sud FM seen rajo 98 point 5 kaddu gi bàyyeekoo fii ci ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi alayhimu salaam te seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye fas yéene cee feggoog yéen incha allahu ba waxtu wi jot ginnaaw loolu nag noo ngi delloo ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di ñaan yal na yàlla faj aajo yi teggiti ci yi saafara jàngoor yi te jéggale bàkkaar yi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 yal na yàlla jéggal nu ko te suturaal nu àdduna ak alaaxira yàlla mi nga xamante ne ku mu muur mbalaanam sutura àdduna ak alaaxira doo weeru doo ko yal na nu yàlla gën a muur mbalaanam suturaam àdduna ak alaaxira yal yàlla gën a teel boppam yal na nu yàlla gën a sàmmal boppam yal na nu yàlla gën a teel boppam jaamu yàlla gën a jafe yal na ko yàlla yombalal te tàggat sunuy xol ak ciir ba nu mën ko defal ni mu ko bëggee mu yàlla gën a yomb gën a jàppandi yal nu yàlla jafeelug mooy tàgg sunu xol suñuy sunuy cër ba nu daw ko moytu ko bañ koo def fa tabaarakallaahu mbokk yi nu ñëw ak yéen nag fi nga xamante ni fa la nu ak yéen te histoire yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam toppoon ngeen nu salaam doomi bàyyee ñëwoon fekk si ko ca dëkk bi ñuy wax misra mu xàmmee leen te ñoom xàmmeewuñu ko bi ñu duggisee rek li mu leen jëkk a wax dafa ne ahaa yéen nekkate ay espion ngeen ñu ne ko subhanallah yow nit ku baax ki yow jëmm ju baax ji ñu de xam nga ñu dunu ay def ko tu njaaw téef duñu ay criminel duñu ay tooñkat ñun ñëpp ñoo bokk benn baay sunu baay yabal nu nu bàyyi njaboot ca sunu dëkk di wut ñu leen yóbbul waaye ñun kay duñ def katu njaax Yuusufa napp leen leen ahakañ ahakañ ay ay ay espion ngeen du ma ko nangu ñu wax ba yuusufa ni leen ñaata ngeen ñu ko ah, ñun day fukk lañu ak ñaar mu ne anañ si des ñu ko kenn ki nag suñu rakk la woon dafa gaañu suñu rakk la woon dafa dafa génn àdduna mu ne ko na ki ci des mu ne ko suñu papa nag dafa jooy kooko ba kooku euh, des fa di ko dimbali ndax sama papa dafa ko dafa silmax mu leen nag bu ngeen ko indiwaatul duma leen ko bu ngeen ko indiwul duma leen duma leen nattalaat ndax da ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen présenté wu ma xam ne yéen ñii nii ngeen toll nii ngeen mel su ëllëgee bu ñu leen fi gisee ñu xam ne ñii kat ñoo bokk suñu mbokk lañ waaye xamewuma ci kenn ngeen dugg suñu territoire du ma ko nangu fekk boobu Yusuf alayhi li muy carte di ko xeeñ du dara mooy bëggoon na gis rakkam ju baax jooju xam na ne ñii ay doomi baayam lañu ñii ñooy doomi baayam yi nga xamante ne ñoo ko kàmbaloon gas ko maanaam sànni ko ca teen ba waaye nag sàcc bu dul nelaw jarul yàqi nelaw gis ngeen Yuusufa pièce bi mu ci defoon nattal leen fukki giléem ak ñaar jëlaat seen marchandise ma xaalis ba dellowaat leen ko ba nu demee naxtaan ak seen papa seen papa ni leen nag duma leen jox mukk sama doom ji ngeen ñu naan ma fii la xar yi jaar nag yi ñëwuñu du ma ko def lenn rek ngeen mën a def ngeen waatal ma fi waat gu rëy ni ma bu ngeen demee du ngeen ko fa bay mbaa ngeen dee ba jeex tàkk ñu door dañ ko nangu daa di waat ñoom itam kenn ku ne ñëw taxaw si kanam papa daal ne billaahi wallaahi tallaahi Benyamin mi bu naree des foofa daañu dee ba jeex tàkk kon ñu nag moom ñoo fay des góor gi nag door a nangu jox leen ko bi ñuy dem ndeysaan góor gi ne nag bu ngeen dee dem bu leen àndandoo comme da a nuroo na ñuy jaar fii ñuy jaar fii ndeysaan foofu la ñu yemoon ajjuma jee ñu génn bi ñu demee def leen seen papa wax Yusufa bi gan yi di gisee ñu présenté ko Youssoupha Youssoupha xool leen ba seppali leen xam ni doomi baayam yaa ngi nii waaye kee nag mooy rakkam ji mu bokkal jenn ndey ak jenn baay ñii ay doomi baayam lañ waaye rakkam ji mu gëj a gis ñaata at ndeysaan mi ngi nii ba mu fay jóge xale la Youssoupha tëral leen teraanga ju rëy bi ñu demee ba ngoon jot ñu war a tëdd Youssoupha lal pexe fekk moom waxtaan na ak waa dëkk bi xamal leen ne ñii samay mbokk lañu waaye dama leen bëgg jàpp ndànk par ndànk kon bu kenn yëngatu bu kenn wax dara bàyyi leen ma ñoom rek ma teral leen waaye am na système bu mu war a tëral ñu léegi nag buur bi nee na mu yusufa na ñaar ñu nekk bokk néeg comme fukk lañu ak ñaar ñoom daañu bokk néeg te benn yamin dina des te bu Benyamin desee moom dina am possibilité ni ko nag booy kon ñu maa yow ñu tëdd bi ñuy séddale chambre yi ba mu des Benyamin ñu ne ko ah, gosse bi dem moom rek moo tool seen mag gi ne ko nag ah, bàyyi ko mu tëdd fii suñu biir Yuusuf ne déedéet loolu du teraanga kenn ku ne ñaar par néeg ñaar nit ak chambre la mais su ñett xasee dëkk loolu man loolu du sama teraanga kon ñu indi leen booy bi mag moom ñu bokk benn néeg ki si gën a mag ni ko déet kii te nga jël keneen wala nga bàyyi ko suñu biir ndax xale la te xale mënut tëdd rek mag xale day tëradi te xale la mu àndal te nga bàyyi ko rek mu tëdd ci suñu biir Yuusuf ne déedéet xale la waaye nag mag la na ñëw rek tëdd ak man mais sax bu ñu tëddee nag foofu la ñu yemoon àjjuma ji passé Yuusuf daal ni ko waaw. yow noo tudd mu ne ko man Benjamin laa tudd mu ne ko sa papa nu mu tudd mu ne ko mu tudd Yankuba mu ne ko am nga jabar mu ne am naa jabar am nga ci doom mu ne waa am naa ñetti doom sa taaw nu mu tudd mun ne ko sama taaw maa ngi tudd Yuusuf ibnu ibnu Yankuba mu ne lu tax nga tudd ko Yankuba Yuusufa mu ne ko Youssouf sama mag la ñoo bokk ndey ak baay dafa teel a réer ku baax loon ku ma bëggoon rafet ku amoon caaj doyaluñ ci moom yàlla def li mu def ci moom sama mag yii rek la àndaloon mm, dem dikk ni dafa faatu ma bañ turam fay ma tuddi ko sama taaw di ko woyee waaye sama jamono bu ma gën a Youssouf mu wuyu ma rek sama népp tukki ndax sama xel dem sama mag ju baax jooju ndeysaan Yuusufa daal di siggi xool ko mu ne ki ci topp noo ko tuddee mu ne ki ci topp maa ko tuddee azibu mooy till till laa ko tuddee mu ne ko till mu ne laa ko tuddee ndax sama mag yi àndoon ak moom bi ñu ñëwee li ñu présenté suma papa defe ni leen dañ doon ànd di rawante ak moom non fàtte ko suñu ginnaaw daw jiitu ko lu yàgg sori ko fàtte nañu ko till yi dogale ko lekk ko moo tax ma tudde sama deuxième gosse till ndax sama xel ba a jóg ci till till mi def noonu sama mag ji te mënumaa gis till gi mënuma xam till gi ci till yi ma tudde ko sama doom yu Yuusufa yu cax bub bi yaram bi daw ndeysaan mu ne ko keneen ki noo ko tuddee mu ne keneen ki maa ngi tuddee ak dam mu ne ko dam mu ne ko dam mu ko deret mu ne ko sa doom ji deret mu ko sama frère yi bi ñu ñëwee sama mbubb mag ji bi ñu indaale dañ ci taqal deret ñu ne till ji dafa lekk sama mag ji ba desewul dara deret jaa ngi ni taq ci mbubb mi ma tudde sama doom ji deret ndax sama xel bu demee ci sama mag ja ma xam ni jàmbaar gor nii la mujje yàlla nag lu ko soob loolu lay def ndeysaan Yuusuf ni ko ndax Yuusuf sa mag ji boo ko gisee di nga ko xam mun ko sama mag ji bu ma ko gisee tey naa ko xam waaye xaw na ma rëcc nag ndax gëj naa ko gis te bi muy dem booba xale la ndeysaan Yuusuf ni ko man maay sa mag man may yusufa benyamin ni ko yow yaay yusufa moo ne ko wallahi man maay yusufa ñii samay mag lañu mais ay saay-saay lañu la wax dara du ci dëgg dañu ñëw ni man dañ doon course daw bàyyi ma ginnaaw tili lekk ma benn tili lekk ma ñoom ñoo dajaloo àndandoo boole ëpp ma doole gësa ma ba ma miir ñu sànni ma ci teen bi daw bàyyi ma fa rey nag genn till taqal ko deret ñëw ni sama papa deret ji moo kii moo des ci sa doom ja yàlla di ma sàmm di ma sàmm ba indi ma fii tey benn yaman song Yuusuf ndeysaan ñoom ñaar rek seen biir néeg ñoom ñu nga seeni néeg di xaqataay di di nekk ci seen bopp Benyamin song Yuusufa Yuusufa song Benyamin ndeysaan ñu fanaanee jooy sama mag ji ma yaakaaroon du ma ko gis moom itam mu fanaan jooy sama rakk ji nga xam te ne dafa doo du ko gis mu doon ndër yërmande yàlla ak yàlla sàmm ma ba dara lalu ma pexe noonu yi nga xamante ne yàgg nañ ma fexeel pour bëgg maa sànq ngir lan fiiraange jege naa suma baay wala suma baay bëgg na ma ñu ni ma bu ma ko jege nañu ma rey mbaa nañu ma sànk kooku bu yàlla intervenir woon wala yàlla sàmm ma wala yàlla namoon ci man ma mujj fii tey kon fan laa jëm mbokk yi xoolal jëf ju ñaaw ji ñaata nit ñoo sànku tey ci ay complot ak ay wax ñaat nit lañu tëj ci kaso ñaat nit lañu tuumaal yàq seen der ba ñemeetuñu wax ci ay complot ak ay wax yoo xam tegewul fenn bu yàlla intervenir woon fan la Yuusufa jëm mbokk yi Yuusufa ngi noonu waxtaan na ak rakkam Benyamin ni ko nag benn euh, xale bi nu ko man nag dootuma dem fenn man fii laay des yow laa bëggoon a gis yàlla wan na ma la dootuma dem fenn fii lay toog dëkk na booy boo soxlaatuma kenn ndax yow rek laa bëggoon sama dund yow rek laa soxloon sama dund te yàlla wan na ma la kon nag man euh, soxlaatuma leneen bëggatuma leneen xaw ma lan de waaye boobu ngeen seet waaye man de soxlatuma leneen bëggatuma leneen Yusufa yi salaam ni ko nag euh, li nga wax dëgg la mën na nekk waaye dañu lal pexe nga intellectuel dafa garaaw ni ko soo jekkee jekkee des fi nii ñoom mën nañ la yeneen pexe dangay da bàyyi bu suba bu ngeen dee ñibbi danañu complot jël sunu àndaar ji ñuy natte wala sunu balaas wala sunu poo yi yi ñuy natte dañu ko jël dugal ko ci sa biir saako su nga demee ba génn dëkk bi daañu leen yuuxu leen daañu leen dab yuuxu leen leen ay sàcc ngeen bu ñuy daañuy visite ñëpp ba ñu lay visit yow bu ñuy visité daañu la jàpp ne lañ lay tëj. ci yoon woowu nga fi mën a dese ba keroog suñu baay di ñëw wala ñu mën a am possibilité suñu baay war a ñëw benn d'accord ci ñu yeew buur bi dafa leen ñu ndékki ñu Yuusufa alayhi salaam ay doomi baayam moom xam na leen waaye ñoom xamuñu ko dafa leen ñu ndékki ñu xëy nag gis Benyamin waaye ba tey seen xel xalaatul ni Yuusufa la wala nangam ak nangam ndax ki xas ba bañ moom bañ na la rek man dul gis dara du am xalaat bu rafet du am xel mu rafet amul lenn lu muy xalaat ci lu jëm ci faveur ci ki nga xamante ni mooy noonam mu nattal leen jël àndaar ji dugal ci mbuusu Benyamin ndaka ñu dox Yusufa ni leen nuyu leen ma seen baay te nuyu mu seen waa dëkk kontaan naa ci yéen jërë ngeen jëf lu ngeen soxlaat rek na ngeen ñëw ma jaay leen nu dem tàggatook moom dem nag di dem ñu ngay bégg a bégg kontaan ndax am buur bu baaxee nii mu bëgg la nii ak dëkk bi nu mettee nga am ku la man jox e, dund loolu tuutiwul ñuy dem di dem di dem ba war a génn frontières yi ñu gestu rekk seen ay soldaar yu war ay fasi naar yi góor di rëppatal daw di ñëw naa ne hey waay hey sàcc yéen sàcc yu bon yi hey taxaw leen yi ñu jaaxle ni ah waaw lu xew ñu daw ba egsi leen trotte tiim leen ni leen yéen sàcc ngeen sàcc yu bon yi yéen yéen ñu bett yéen yéen a tas suñu yaakaar. ndeket la ngeen di melex melex yépp ay sàcc ngeen la ilaha illallah waaye gis nga ndeysaan eh, alquran dafa yiw te rafet nu muy yare suñu borom nee na falamma jahazahum bi jahazihim jaala siqaayata fi rixli axiihi summa summa azzana muazzinun ayyatuha al iiru innakum la saadiqun qaalu wa aqbalu alayhim maasa tafqiduun qaalu nafqidu suwaa almalik wa liman jaa bi ximlu bairin wa ana bihi zaim ndeysaan alquran nee na ba mu leen nattalee ba pare mu dugal àndaar ja mu doon natte ci saako benyamin ñu dab leen ni leen yeey sàcc yu bon yi waaye nag gis nga waa kër yónteel yàqub yi rectifié nañ leen ndax bañ leen yeey sàcc yu bon yi dañu wëlbatiku ni leen waaw maa sa tafqiduun baatu sàcc ñaaw na kilifa yu toll ni ñun di ay mukallaf lu ngeen réer le gis nga wax bi moom la mu rafete lu ngeen réerle ñoom it ñu xam ni ñi wax nañu ñoom ci wax bi gën a yiw qaalu nafqidu suwaa al malik àndaare buur ji buur bi lañuy seet dafa réer dañoo natt ba pare wër wër gisuñu ko te àndaar yooyu dafa cher te buur bi da ko fonk léegi nag wali man jaa bii ximlu bair képp ku ko génnee ci yéen daañu ko jox sëfu giléem daañu la jox giléem gu ñu sëf mu fees del ak pepp ak dugub wa ana bii te man mii maa ko war lool loolu rek mooy suñu problème ñu taxaw ñu yang di xool xaalu ñu tontu dañu tallaahi laqad alimtum ji naa li nafsida fi l ardi wa kunna saariqin giñ ci yàlla ni billaahi wallahi waat nañ ci yàlla ni xam ngeen ni ñun ñëwuñu ngir yàq dëkk bi ñëwuñu ngir saboté dëkk bi ñëwuñu ngir indi fi jikko ju ñaw billaahi xam ngeen loolu te xam ngeen ñu doon ay sàcc ñun ku nu xool di nga xam ñu ay sàcc ñun ay gërmi piir lañu ay derti gor dëgg mooy daw yaram ñun doon ay sàcc qaalu fama jazaauhu in kuntum kaazibin ñu ne waaw d'accord waaw ne ngeen du ngeen sàcc waaw bu fekkente ne waxu leen dëgg nag suñ leen visité fekk ni yéen ñii ndekete waxu leen dëgg yéen a ko sàcc kooku luy payam kon ban peen ngeen def ñoom ñu tontu dañu xaalu jazaauhu man wujida fi raxlihi fa huwa jazaauhu ku ñu wisit ci yow fekk ni yow yaa yor buur bi yow moom yaay payam yow mi ko sàcc yow la ñuy jàpp kazalika li ngi noonu nag najis zalimin noonu la ñuy faye tooñkat ndax caaxaan paasewul ñëw ci dëkk bu mel ni mii ak teraanga di ñu fi am amoo looy xalaat lu may di fi sàcc ku ñu ko ku ñu ko fekk ci yow rek nan la jàpp ma ngoog ñoom nag ñoo condamné seen bopp mënoon nañ rek aussi man na mu njuumte wala mu topp ñu ci yëguñu ko wala ñu dugal ko te yëguñu ko nangam nangam waaye bis leen parce que wóolu nañ seen bopp ndax ay doomi yonent lañu seen baay yonent la seen baay baayam yonent la seen baay baay baayaati baayam yonent la kon ñoom xamuñu lu ñaaw lu xamuñu lu ñaaw nee na fa badaa bi awiyatihim qabla wiaai axiihi ñu commencé nag ca ka ca gën a mag di visite di tekki saako yi di xool di sekk saako yi di xool di tekki saako yi saako bu ñu tekki rek xool yëngal gësam gisuñu dañu wax non yow yoroo ko takkal dama taxaw na yow di wisit di wisit xam la weexaay ak lu jëkk ñuy wisit nag rak ko buur bi te mooy Benyamin ne naka ñu xool saakoom rek su mastax rajaxaa ñu doon koy génnee xam nga ñoom ñoo ko fa defoon su mastax rajaxaa ñu génnee ko kuy génnee ku dugaloon ko yaay génnee ma ngoog min wi ay axiihi ci biir saa kuy rakk ji muy Benyamin suñu moom nee na kazalika ni que nii gidd naa li yusufa moom la ñu pexeel yonent yàlla yusufa moo ko rakkam ja maakaana ya maakaan li yaxusa axaahu fi diin almalik ilaa yasha allah narfau darajaati man nachaau wa fawqa kulli zi ilmi alim nee na nii rek la ñu mënoon def pour mën a récupérer rakkam jooju Benyamin boole ko ci diine yi ci kër ci ci ci ci ci ci mouvement mouvement présidentiel boobu ca Égypte nii rek lañ mënoon def ilaa insha allah xanaa mu soob yàlla yàlla moo yenkee wal yont yàlla yuusufa mii pexe mu tërale ko pexe mii ba mu jàppam rakkam jooju suñu borom ne nag naar faw darajaatin mën na sha nooy seet ku ñu neex ñu yëkkati ko ay daraja jox ko martaba jox ko ay maqaama waaye fa kullu zi ilmin alim xam-xam boo gis am na ku ko am na lu ko tiim lu reen jan jan jan reen gën na koo jan ñu ne ah, sàcc baa ngi sàcc baa ngi Binyaamin yow yaa ñu bett laa ilaaha illallah yow kon li nga ne xiim ak li nga ne muug lépp yaa sàcc nekk kii nekk nekk àndaare buur bi ak li buur bi defal xool li buur bi defal fanaan ak moom nekk mu benn lal mu tere loolu doyu la amoo looy def nga di ko sàcc xaalu ñu jàkkaarloo gaa yi leen eh in yasrib faqad saraqa axun lahu waaye bu leen ñu rey waaye bu leen ñu rey loolu loolu ndono la ci ñoom loolu ndono la ci ñoom de bu sàccee it magam sàccoon na magam sàccoon amoon na magam magam Yuusufa bii ngeen di wax nii mais sàcc la woon te sàcc gi ñuy jiiñ Yuusufa di ko fàttaliku mooy maamam moo amoon xërëm xërëm boo xam ne da nga ci néeg di ko jaamu Yuusufa nag dafa yàgg bañ xërëm mu jël xërëm ba nag nëbb ko mu nekk daraam nag nit ñi di ko wër nag di ko wër di ko wër ba mu Yuusufa mujj ko génnee jox leen moom lañu daan loolu lañ koy considéré daan sàcc la woon ka la <laughs> xam ne réer dafay dafa doy waar boo xasee ba réer moo tax aw askin wu réer baaxul dañuy défendre lu ñu war a défendre di coow ci lu ñu ci war coow di wax wax joo xamante ni maar day taal yi loolu moo daloon loolu moo daloon waa Égypte ma ngoog nee na faqin saraqa baqa saraqa axul law magam sàccoon na nee na bi Yusufa dégg wax boobu rek ndaka ñu wax wax boobu rek nees fa asarraha yusuf fi nafsihi yusufa kanamam ñàng waaye mu nëbb ko ndax wax bi dafa ñaaw te daf ko jam ndax ñoom yëpp dañ koy fomante li wax dara du ci dëgg waaye wax ju ñaaw rek mu ni walam yubda lahum waaye mer mi feeñalu leen ko dafa ni mbatt rek du muy xool na fenetal xaal yusuf daal ni antum sharru makkaanan yéen yéen a ko yées fuuf yéen a ko gën a bon booba nag yuusufa ma ngi bëgg a gis boppam ndax sa rakk joo bokkal ndey kompaloo ba tax ngeen egsi fii ci daar daar ñu waxal beneen baat boo xamante nii dafay direct ak dafay adressé directement sa yaay wala mu adressé directement sa pàppa kooku boo dee borom siddit doo mën a supporter loolu yuusufa ne nag wallahu aalam bi ma tasifuun yàlla xam na li ngeen def la ngeen def ci yuusufa ak li ngeen def ci moom yàlla xam na lépp dox leen rek qaalu yaa ayuha alazizu inna lahu aban cheykhan kabiran fa xuz axadana makaanahu inna naraaka min almuxsinin yaa ayuha alaziz gis nga Aziz booba Misra firaaw na amagu fa woon booba ku yiite ku jiite woon dëkk bi dañu lay wooye Aziz imraatul Aziz Azizu Misra ñooñu ñoo fa nekkoon ki Yuusufa remplacé ak Walid ibnu Rayaan ñoom ñépp Aziz lañ doon wax kon bi fa Firawna xewee yàggul mooy lu jiitu jamono yonent Yàlla Muusa jëm kaw muy demel de Kayoor ak façon yooyu ngook ngoog yaa ayyuhal aziz yow jëmm ju baax ji inna lahu aban shaykhan kii nga jàpp baayam dafa di mag kabiiran ba màggat te bàyyam xam nañu fi mu toll ci moom xam nañ tam cofeel gu am ci moom waaw parce xam nañ fa xus ahadanaa makaanahu jàppal keneen ci ñun te bàyyi xale bi innaa nareeka minal na ñun gis nañ ni bu mu fi dalee ñëw ba léegi la ngay rafetal jëm ci ñun kon ñaan nañu la nga jàpp kenn ci ñun bu fekkee mënoo koo baal moo gën nga jàpp gos bi ndax gos bi bàyyam mag la bàyyam dafa màggat te xam naa ne egg nañu rek ni ko yu ni ko Benyamin nangam rek moom góor gi mën na fi doxee faatu ndax déception boobu góor gi mën ko supporter nee na Yuusufa daan neen maazallah yàlla tere maazallah yàlla tere an axusa illa man wajadna mataana indahu inna idan la zalimun ñun du ñu jël ñun du ñu jàpp ku sàccul ki sàcc la ñuy jàpp ki ñu jàpp ki ñu fekk suñu bagage ci loxom kooku lu ñu jël duñ jël kenn di ko tayleel mukk xalaatuñu loolu xanaa kon <laughs> kon ñu nekk tooñkat na bàyyi sàcc bi jàpp keneen gul sàcc muy garanté keneen déedéet ki ñu daal duñu tooñ kenn ki ñu fekk suñu bagage tam daal la ñuy téye gars yi nag mer mera mer am na ci koo xamante nii ñu ngi koy wax Robert bu mosaan mer mbànd yi ndaa yi dañuy toj bu yuuxoo jigéen ju ëmbul ju fa nekkoon rek mën na avorter ndax yàlla leen ko jagleeloon nee na mu commencé mer nag di fonkali ko am ko ku ñëw ci Yahuza ne Yuusufa bàyyil booy bi soo ko bàyyiwul billaahi robin bi bu yuuxoo wala mu mer fii dana yàq ci dëkk bu dëkk dana am bâtiment yu xar Yuusuf ne ah mais loolu du sunu affaire ah mer leen man ngeen jaay jël sunu alal ñu di fayiwu ngeen di mer mer leen Ruben commencé mer waaye booba booba Yuusufa am na doom joo xamante ne nii ci ñoom la bokk te waa kër Yanqooba ji ku ci mer bu amee ku bokk ak yow deret rek su la jegee wala laal rek mer mi day giif bu mu commencé mer nag di fonkaliku nag Yuusufa bàyyi doom ji ndaw ji ni ko demal nga téye kële xale bi ñëw ba loolu ak Ruben rek téye ci cëtu baaraam ne mer mi commencé giif mer mi commencé giif mu commencé wàcc mu mer mer merlu jéem jéem mer merlu mais mënul fexe ba mer mi yéeg mais ba léegi rek taxul sax ñu xalaat ni mais kii am na lu ñu bokk ak moom. nii daal fa la ñu mujjee nag. ak déggal tur ñu ko wooyee yaa ayyuhal azizu yow ko tedd ki yow ko baax ki yow ko sell ki te moom kat kañ ni woon. saay-saay la kañ ni woon dafa bon kañ ni woon du fi màgge tey moom la ñuy wooyee Aziz mooy ku tedd ki te yëgaguñu ni seen kañu jàpp woon seen noon démb moom la ñuy wax na ayyuhal Aziz maa ngi lay wax keroog ni la misra bi fa firaaw ne duggee ci jamonoy Muusa la ak lu ko faw féete kaw tuuti waaye ci jamono Yuusufa jëm ci kaw Aziz rek imratu Aziz yaa ayyuhal Aziz rek lañ leen doon wooyee ngoog yaa ayyuhal Aziz inna lahu aban shayqan moom kat papaam dafa mage kabiran ba màggat fa xus ahadana jëlal kenn ci ñun makaanahu mu jël palaasam inna nareeka min al muhsinina ndax yow kat dañu la gis ni ci ñiy rafetal nga bokk sa xool dafa rafet sa jikko dafa rafet ndax kii kat boobu ñu demee nii ne baayam sa doom ja ñëwul dafa sàcc wala nangam ak nangam booba moytul papam dina faatu ci suñuy loxo ndax booba xam nañu waaye mbokki fii liñ ci wax rekk mooy ndekete keñaan fanqul muur yàllaay maye léeg-léeg nga nekk ci service ñu di la xeex wala ñu lay atte ñàkkal wala ñu lay kompaloo ak di lay yàqal boo yox yoxee walla nga ragal rek gëmuloo yàlla ndax doomi bàyyi yusufa yii bu ñu xamoon ni kii fii lay mujj kon du nu àgg ak moom fii kon ki jóg di xeex ak ki jóg di yàq ak ki jóg la baare dafa xamul yàlla moo tax nit ki warloo tiit dara jëlal lépp teg ci loxo yàlla bari na ko socc bëgg a ree amaana bu soccoom bu àggul bu doon ni ku pexeel nit am la nga bëgg kon Yuusufa du doon yonent te du doon buur waaye bari na looy bañ fekk na loolu moo baax ci yow barina na looy bëggit fekk loolu baaxul ci yow baayam mi ngi doon bëgg Yuusufa des ci loxoom waaye su desoon ci ay loxoom it est-ce dana mën a doon tey dana mën a nekk tey ab yonent walla buur moo tax yàlla moo am programme boppam yàlla moo am machia boppam nit xamul mënul kon ki man mooy yàlla makam itam ñu doon bëgg mu sori seen pàppa tax ñu nañ ko sànni ji wala nañu ko rey mu ndax sànni nit wala jéem a rey nit tax na li mu war a am du ko am ndax mere nit ak kompaloo nit ak yàqal nit mën na tax la mu war a am du ko am xatta yaazana li abikum aw yaxkum lii du ma génn dëkk bi mukk man te di ko tey du ma génn dëkk bi mukk nda rek yàlla attewul ci man ma dee fii ci suuf suñu gas ma suul mbaa yàlla atte lu ko neex ci man du ma dem mukk naan sama papa benn yaa ma nangam ak nangam parce que gor laa dëgg yàlla gor laa ndax yàlla huwa xayrul xaakimin muy attewaat kon bi nga xamante ni ku dana la ko dana ko attewaat joxoon ñoom ñëpp te yàlla mën na ma ko indil asallah an yaatee nii bihim jamiam naa ko muñ loo yàlla muñ gu rafet amaana sax yàlla indi ma leen ñoom ñëpp ñëw sax faf ngeen dee ngeen ferewelle li ngeen di bañ di seen wata walla anhum mu dumóoyu gaññ di seen wa qaala yaa asafa ala yusuf tttt ay waay waay man ak ay waay waay sama doom jawat ay waay waay bi naqar waay ay waay yàlla lu ma la def bu doon ti ji jamono noonu la ko gaañee commentaire men wab yaddat aynaahu min alxuzni fa huwa kazim bët yi commencé taa ngook du ci commencé taa ci ngir njàqare wa huwa de moom kazimul ma nga mer nga mer mhm. ndax dëgg moo tax ñii ñii xeeb nit ci mbëggeel dañu xamul lan muy mbëggeel góor gi dafa jooy doomam ji ba gumba ba silmax muy mooy mooy euh, yàquub dafa jooy yuusuf ba silmax moo tax léeg-léeg nga gis fekk nit ci lu mu bëgg ñaare bala nga koy yedd rek na nga càmbar li mu bëgg ba pare burul yàlla rek xeexal ak moom mu bàyyi ko bu dee yàlla nag bàyyi ko ci xam ni nattoo ma nga noonu yàlla yàlla defal nu jàmm yàlla yàlla defal ñu sutura xéewal ñu teg foofu suñu baaram incha allah ba àjjuma jële jëm ñu ñëw nag eggal ak yéen ak xissa bi seen mbokku Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu